ci may seen revue de presse. dañ ci ànd ak El Hadj Ahmed Aïdara xaalis bi doxatul ci biir réew mi de Macky Sall ne xaalis bu salte bi kay moo doxatul ci biir réew mi ci tribune yéene kay président Macky yamu ca ndaxte nee na ñi nga xam ne dañoo bëgg a nekk nag ay milliardaire te dangu ñoo liggéey ah danañu am kon ay jafe-jafe yu bëree bëri yéene gi ne ab yax wuñ ñu sàndeete la rek ngir kon ñu koy siiñu xam nga président Abdoulaye Wade kon doon na def lu ni mel bu demaan daal ba tollu kon ay jafe-jafe rek daal di ñuy sànni nag kon genn ñu nekk fa nag di jéem a kon siiñu ak lu ni kon la ñu ni mi Sall daal bu ko leereen ne xaalis bu salte bi kon doon dox ci biir réew mi laataa moo waaw ba tax tey jile kon nit ñu baree bari nag maanaam di réccu kon xaalis boobee nga xam ne kon da doon taxawaaloo ko jaaba jonge lan moo tax kon ba Macky Sall mi lay audit yi nga xam ne kon moo ko fi yëkkati woon mu bàyyi ko nag maanaam ñuy jéem a kon maanaam di jéem a somnole ak lu mel te moo Macky Sall moo mais moo tijji woon kon audit ya tribune yéene kay ne politique bi nga xam ne kon maanaam ñiy jógte nañu ko ne lépp kon dañ koo bëgg teg rek ci wàllum siraatal mustaqim dana jafe lool kon ñu ko ah que ñoom ñi nga xam ne maanaam ñoo ko war a appliquer ñoo ko war a def ñoom ñooñee kon ñoo nekk ci ab gouvernement boo xam ne gouvernement riche la gars yi am xaalis lool te bu ñu sukkandikoo nag maanaam ci kàddu yi nga xam ne ñoom ñoo ko fi yëkkati woon waaw ñu ci baree bari kon ci ministre yooyu yee ci alal ju baree bari kon la dëju premier ministre bi ci alal ju baree bari kon la dëju président de la république kon ci alal ju baree bari kon la dëju ma ne loi daal di wàllu yoon waaw nañ ko lal ci ndoddub képp koo xam ne ab vandal nga Samba Surabali koo xam ne ab cantakun nga waaye tamit ab sàcc nga birima ci tribune ne kay ne xanaa segg boo ko nekkee waaw jarul nga nekk fi daal naan man segg laa maa la wax li le bu weesoo ñàngal gu bari géeg fuural gi yëpp yow il faut kon ay jëf nit ñi di gis ay acte maa la wax li leen tey jile kon Sénégal kii la mu soxla mooy kon def ay jéego yu am solo Idrissa Seck mi nga xam ni ab opposant wu Macky Sall lay doon ëllëg wax na ko le pays au quotidien yëfu Samba Surabali fitna yi nga xam ni kon maanaam cantaku ni defoon nañu ko Macky Sall ci boppam libéraux yi kon la jàmbaaraamuk tuuma maanaam waa parti démocratique sénégalais Babacar Gaye yor kàddu parti démocratique sénégalais ne bisu tabaski bisu julli la bisu jéggalante la bisu baaluwante Sall moom amul dara lu mu ca def kon ay kàddu di tiitalaat waate maanaam di a waate te Macky Sall nag la ma waroon a def xam ngeen mooy lana ah. jëlee daal ay njàngat di ay leçon ci gouvernement bii nga xam ne maanaam lajj nañu ci dossier wu Cheikh Béthio Thioune bi Seydou Gueye APR ne discours président bi discours la woo xam ni kon wu dëju la ci képp koo xam ni kon a vandal nga di Samba Sourabali discours bu leer le président Macky Sall kon yëkkati maître El Hadji Amadou Sall ne discours bii day wane ne ñii dañoo tiit ak gouvernement bi ci boppam fi mu nekk ni la kon ngi tiit ak a pat pati waaw ci nga xam ni kon sénégalais maanaam meree nañ ko ko maître Sall yamu ca ndaxte nee na discours du président Macky Sall bi le saaga la sax saaga la ci sénégalais bu Macky Sall kon bëgg a jug taxaw naan alal ji nga xam ne kon fi mu nekk nii moo doon jaabaa jonga yëpp alal ju salte la loolu Macky Sall askan wi ci boppam la saaga te li ma bëgg a xam man maître Sall mooy Macky Sall ci boppam kon mu wax sénégalais fan la jëlee alalam ji ci juróom-ñetti atu yàlla huit ans ñaareelu pàcc ci discours woo wee mooy nguur gi ci boppam bi ci boppam la bëgg a jëfandikoo ngir indi kon ab ordre dëkk bi jubbanti nit ñi armée bi ci boppam maar tey taali laa que tey police ay ak dañoo sii su toog waaw waaw parce que sentir nañu ne yëg nañu ne seen kilifay di erreur bi kat dañ leen a aarul benn yoon protéger wuñ leen Sud Quotidien ne cantaku ni xaalis bu salte bi drogue bi Macky Sall day mi ngi wane dooleem Walf Grand Place ne Macky Sall daala ngay tiital kon cantakun yi ak ñi nga xam ne ay yàqkat lañ Le Soleil yéene kaay ak laas ne Macky daal ci jëf yi nga xam ne kon moo fi amoon gars yi kon yàqatee tojatee altine ji ñu génn waaw Macky koo xam ne kon ga dana la topp te ne doonee benn réew mi Quotidien ne yorin gii nga xam ne nag maanaam kon am na ay gàkk-gàkk waaw Idrissa Seck day daa mbéj kon kii di Macky Sall maar tey taali maa la ko wax parce que Idrissa Seck xam le ne carrément ne projet yi nga xam ne kon moom lañ doon xaar gouvernement bu bees bii amul kon benn avancement boo xam ne kon ni mi ko nañ ko ca Le Pays au Quotidien ne moo ni Idrissa Seck moo mais dàqul kon dugg ci gouvernement bi di ah maa la wax li la waaye Macky Sall ak njabootu politique am kii dañoo lànk ndaari tëdd ca kon du dugg ci gouvernement bi Madiambal Diagne ne gouvernement bi moom ci nii ak ñu ko changé ay coppite kon dana ci am di wàllum remaniement le quotidien yéen kay ne Macky Sall kay àbb na sa conteneur ya seen ciseaux ya ah bi kay danañu xotti ñii dagg ñee remplacé ñii dugal ña ca des ñaar fukki ministre ak juróom la ñu yor danañu dem ba ci ñaar fukki ministre ak juróom-ñeent ya maa la ko wax ñu bëree bëri kon danañu dugg te Macky Sall ci boppam nag la mu waxoon diggee ko dana ca dellu ginnaaw maa waxoon waxet ga libération yéen kay ne Cheikh Amar tey ñu ngi koy songee kon fu ne maar tey ñu ngi koy attaqué fu ne laa wax nguur gi ci boppam fi mu nekk nii la mu bëgg daal mooy tas Cheikh Amar yàqati ko rek am na ci ab plainte bu bees boo xam ne kon ma ngay jógee ARTP di dal ci kaw Cheikh Amar waa CNCH banque la ña ngay a dal ca kaw Cheikh Amar cour des comptes ña ngi koy waaj a déglu brigade financière ak inspection générale des finances ña ngay waaj a kon ca sa bu Cheikh Amar ma jambal jaan ci yéene kaay gi ne nañ waxante dëgg Macky Sall daal ba mu dikkee ak léegi ni le ah dara doxul doxul de lii doxul kay mooy suñ football bi le le populaire ne ginnaaw Louis Lamotte vice président yeneen ñett kon tekki nañ seen ndomba tànk stade yéene kaay ne Moussa Diaw Dieng la ak Cheikh Seck ak Ibrahima Traoré le populaire ne nguur gi daal fi mu nekk nii daa am yaakaar ne fukk ak ñett ñoom bu ñu tekkee seen ndomba tànk comité exécutif ba a ngay si suba léegi ni la kon di résister laas premier ministre bi moo sàkku ci Augustin Senghor moo mais mu tekki ndomba tànkam waaye président fédération bi daal lank ndaare ko laajoon baaraamu ah bu ñu sukkandikoo ab seede nee nañu premier ministre moo doon wax daal ak président fédération bii di Augustin Senghor Malick Gakou bëgg faa yëkkati kàddu Augustin Senghor lank ndaare tëdd ca suuf ba jukkoon dem yoonam maa la ko wax te ca fédération boobee ñu ci bëree bëri na nañu ne alaaji Malick Gakou daal looy njiig mooy njàkk moo nekk ca ginnaaw lii lépp te bu ñu sukkandikoo ci benn vice président ah nee na mais premier ministre buy dem bay sàkku ci nit ñii ñu tekki kon seen ndomba tànk te lii lépp ministre bi la lii lépp alaaji Malick Gakou la te xam ngeen nag mbir mi lan la sax alaaji Malick Gakou maanaam moo fàttewul 2009 keroog ba ko maître Augustin Senghor doon gagné kon ca élection ba ca présidence yu fédération sénégalaise bu football ba laas bu ñu sukkandikoo ci ay seede ah alaaji Malick Gakou diggante ajjuma ak dimanche da doon woo ñu nekk ci fédération boobu bee leen tekki leen kon seen ndomba tànk lii maa la ko wax jéem leen a yay daal naan leen état bi ci boppam nguur gee bëgg a jëlaat nag football bi kon téye ko ngir mën a rëcc kon ci mer gi nga xam ne waa kaaf di kuréel gi ñu denk wàllum football bi ci Afrique gii def nañu ko balaa daan yee kon lalu suñu ndodd waaye nag boo sàgganee seen bëgg-bëgg boo bee ñaan nga de un parce que bi wala ñu ca gën a bëri boo parewuñ kon ngir tekki seen domba tànk non te bu nguur gi continuer nii ci ab musiba boo a gis goo xam ni la <laughs> baax na baax na <laughs> alaaji suñu coowal football bi yëpp waa Côte d'Ivoire ñoo ñu ko yóbbee ñoom Didier Drogba ñoom Zakora ñoom bi Bino ay Yaya Touré ay Kalou ay Cheikh Cioté <laughs> Cheikh Cioté xaritu Pape seex jàll bi Cheikh Cioté xaw na ñoo rey Cheikh Cioté ma ne alaaji